bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin mbokki jullit mbokki taalibe bi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di jégglu tey balu xaq di jiital ci nuyu bi ak ziara bi ni ñu ko baaxoo defee ci jataayu boo xamee ni ci ay taalibe ñoo ko séq sëriñ Tuuba sëriñ Muntaqa Mbakke xalifa général kulu murit di yokk ñaan yàlla mooy may ko fan wu gudd lool mu ànd ak wér yaram di jagleel ab nuyoo ak ab ziyaara sëriñ Abo Baraka Mbakke xalifa cheikh Mouhamad al Fadal ak mboolem njabootu cheikh Mouhamad al Fadal Mbakke gépp ak mboolem njabootu xaadima rasul gépp eh, ñu am mbégte nag teew tey fii ci kër kenn ci njabootu xaadima rasul ci pàkk barkeel muy Touba Ndindi. ci kippaaruk cheikh abdul karim mbakke moom cheikh mohamad al fadal borom makaarimul axlaaq ñuy ñaan maulaana tabaraka wa yokk ko may fan wu gudd ànd ak wér yaram ba li mu yéenee liggéeyal Serigne Touba lépp mu liggéey ko e, ñu teew fi tey fas yéenee waxtaane liggéey bu am solo boo xamee ni bokk na ci liggéeyal Serigne Touba waaye bokk na ci bunt liggéeyal Serigne Touba yi Serigne bi gën a fonk Cheikh Abdul Karim mi nga xamee ni yitteem guddi ak bëccëg mooy jëriñ doomu adama yi euh, yitteem guddi ak bëccëg mooy nekk ci waar wi di liggéeyal sëriñ Touba fépp fu mu yaakaar ni mën na fa amee ngërëmul sëriñ Touba muy guddi muy bëccëg muy naaj muy sedd jaral nag ko euh, ku ne gis na liggéey bi nga xamee ni liggéeyal ne ko Serigne Bamba ci taalibe yi ak ci secteur yu baree bari waaye bëgg gu mu bëgg a sàkku ngërëmul Serigne Touba ci xasaayiti Serigne Touba yi ginnaaw bu mu jàngee Alquran ba lu nekk ci téere mu xam ko jàng xasaayiti Serigne Touba yeetem gis ngëneel ak may yi nga xamante ci yàlla may na ko Serigne Touba ci xasidaam yi mu gis Serigne Touba xaadim rasul fi mu teg xasidaam yi ak maqaamay xaside yi ndax bu ñu fàtte ni Serigne Touba xaadim rasul moo wax ni tabassama al muxtaaru min jilaasi mun su badaa bihi bukal xanaasi saa yu ma toogee jublu penku. di tagg rasulullahi su ma fabee sama xalima dugal ci daaj yi rasulullahi day ree ba saaraar jépp feeñ waaye iblis day jooy ba ay rangoo ñëm wër ko ngir sama xasida yi cheikh abdul karim nag liggéey gu muy liggéeyal sëriñ tubaa ci xasida yi tax mu indi ñu lu am solo loo xamee ni taalibe yépp war nañ ko bàyyi xel war nañ koo dégg war nañ cee teg seen bët war nañ ko dañ kumpa waaye war nañ koo jariñoo loolu moo tax tey ñu teew fii ci kër gi feggoo ak njabootam gi feggoo ak sëriñ Mbàkke ñang ma ngi nii toog di doomam di jarbaatam waaye feggooteem ak sëriñ Jili Mbàkke euh, ak mbooleem jëwriñ yi nga xame ni si ñoo baaxoo ànd ak sëriñ bi mu sàkk delegation nag boo xamee ni sëriñ Moustapha Mbàkke moom sëriñ Modou Xaafis nga xamee ni si waajuram moo nekkan ca barabub sëriñ Falilu ba tey mu nekk fa nekkin bu rafet ma ngi nii toog ñu dend ak sunu jëwriñ Serigne Fallou Galas Jatara di borom xam-xam bu mag koo xam ne Serigne Saliou moo ko léppal mu yore kàdduk Serigne bi waaye seen wetu ndeyjoor ñu dend ak Serigne Mortala Diagne moom Baye Modou jaañ bu daaree kaamil yaakaar naa jëmm ji rek bu ñu dendoo ak moom xel dina dem ci xasida ak liggéeyal Serigne Touba ci xasida yi muy Serigne euh, Mortala jaañ mii. kon dafay mel ni téere boobu di Taysiirul Asiir di xasida ak tubaa Touba gu am solo. gu fees dell ak ay ngëneel di téere boo xamee ni si fu jafe-jafe nekk tey siron asir moo fa nekkul téere boobu ci la Cheikh Abdul Karim liggéeyal Serigne Touba liggéey boo xam ne taalibe yëpp war nañ cee teg seen bët waaye taalibe yëpp war nañu ko yëg loolu moo waral jataay bi tey dañuy jëkk a jox kàddu gi Serigne Moustapha Mbakke eh, moom sëñ Modou Haafis moom mi nga xamee ni si moo nekk ca barabab Serigne Falilu Mbakke ba dafay mel ni bind gi bi bind téere bi muy Taysiru Asir yàgg na ndax ci l'histoire dafay mel ni 1974 la boobaak léegi doom ju fi juddu woon màgg nga ba samp kër lu fi waaye door a yaakaar naa ne am nga ca la nga bëgg waaye téere bi di dox di dox ba bu yàggul mu tàbbiwaat ci loxoy Cheikh Abdoul Karim sëñ Moustapha téere bi ginnaaw bu ko sëriñ bi bindee 1974 euh, tàbbalan ko ca barab ba fan la téere bi jaar ba tàbb del ci waat ci loxob sëriñ bi ba ñu mool ko. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu <coughs> ko teewee ci jotaay bi. di siyaare sëñ Abdul Karim di ko jottali sunu nuyoo ak sunu mbégte ci liggéey bu sell bi nga xam ne def na ko te ba mu koy door it sell dong la ci bëggoon ba mu ko liggéeyee ba noppi nag sama waajur la ko joxoon muy sëñ Moodu Afis Mbàkke nga xam ne boobu moo <clears throat> nekkoon ci barabu sëñ Fallu ne ko téere bi dama ko liggéeyal sëñ Fallu bëgg nga dima ko jàngal fii muy Taysiru Ansir ba mu ko bindee nag yàgg na lool te te te téere bi nii la man maa ko plastique yi nii ba mu ba mu koy dafa mujjoon xar nii ma maa toog bu mu yàgg ma ne naa ko plastique fexe ba gis sëñ Abdou Karim fàttaliku ko fekk daan def sax saa saa su ma fekkee ci barab ne ma ma ne ma danaa la wutalab kaamil ma ne ko ah, sa téere bi de mi ngi foog ne indi ma sama téere bi sama téere bi ba am bis sama benn rakk bu ñuy wax sëñ Fallu ñëw fi mun na ko yéen ñi daa joxoon naa seen baay euh, euh, ab ab kaamil ab ab taysiir mu ne ko ko kooku xam naa sëñ Moustapha moo ko yor sëñ bi daal may wool boobu ne ma ana sama téere ba ma joxoon seen waajur wa ma ne ko téere bi di mi ngi fi daa xaw a kii nag waaye danaa ko defal ba nga xam ne des na ko a jëfandikoo ci laa ko plastique yi nii xam xaw naa yàgg fekk ko jiitu sama moo ko jànge mel nii léegi nag mu ne ma téere Abdou Karim bi de jàngi naa ko ma xam damaa bëgg nga bindaat ko yow ma bindaat ko man mii sama loxo bindaat ko comme nii rek ne ko ne ma roy ko ma bindaat ko joxaat ko boobu muy jàng mu ma yow téel bii di ci barkeelu man na maa ko sàmm ba mu dikkaat nii bi mu ne ma indil ma sama téere laa ko pratiqué nii indi ko yàlla def na keroog maa ko fekk ci toolam yi ñuy wax jembare fii ci yoonu jolof wi ma jox ko mu bég lool ne ma kii ne damaa bëgg moom xam naa danaa ko yeesal incha allah noonu daal la demee sëñ Mourou Abis moo ko yoroon jële ko loxol sëñ Abdou Karim mu jànge ko ba mu xar nii jox ma ko ma bindaatal ko comme nii delloo ko sama baay muy jànge boobu mu joxoon bi ma ma ma ma ma téye ko di ko sàmm ba léegi ba ni ma ko joxaat si sëñ Abdou ba ni ko yeesalaati nii ñu di ko ci sant di ko ci gërëm xam ne lu mu ci jublu ci ngërëm suñ fol la dana ko ci am lu jotam waaw ñu itam ñooy ñaan képp koo xam ne gis na téere wala nga am ko yàlla na suñ suñu borom la ci lu kawe sa njort te nga ñaanal sëñ Karim mu gudd fan lool gudd fan loolu fanu fanu maam maaram wala na ko weesu sax bakk sëñ Fallu ñoo ngi koy ñaanal taxawaayam rafet na lool fekkoon na sama naan bi bu bu bu ma wéetoo noonu daanaka ku mel ni yow daa eh, eh, comme ni nga demee nii da ngaa war a wàcc ko ngir ngir ngir ëllëg daal par que moom xelam mi ngi woon ci muul tey sir bii kon nag eh, lépp loo xam ne yéen na ko ci alxuraan wala xasida ak yoonu maamam bi ak yoonu juróom bi yàlla na ko suñu boroom jàppale defal gudd fan eh, ak wér yaram ak mboolem mboolem taalibe yëpp ak suñu fallu ñoo ngi siyaar suñu Muntaxa ni siyaar suñu Abu jërëjëf. sëriñ Moustapha leeral gi am na solo kon dafay mel ni ni nga ko waxee téere bi bi ko sëriñ bi bindee 1974 ginnaaw bi yow toppaat nga ko waaye la nga toppan sa waajur nga ko jox. waaye jëmmi mbindum sëriñ bi nag danga nga koo dencan sa kër ndekete ba nga koy denc bis moo taxan ba bis ba jotee sëriñ bi laajaat la ko nga andi ko loolu cib tënk dafay mel ni tey siro asir gii nga xameen ci tey moo waral jataay bi te Cheikh Abdoul Karim Mbacké bind ko ñu war koo yaatal ba taalibe yëpp teg ci seen bët war koo yaatal ba taalibe yëpp jariñu si mën nañu ni bi ko sëriñ bi bindee ak léegi ñeent fukki at ak ñeent la ndax boo xoolee 74 ba 2018 dafay mel ni am na ñeent fukki at ak ñeent bi ko sëriñ bi bindee ak léegi. Eh, sëriñ Fallou Gras Diatra eh, ginnaaw bu ñu nuyoo ziara la ginnaaw bu téere bi tàbbiwaatee ci loxoy sëriñ bi eh, sëriñ bi yéemu ci lool ndax ku ne xam na sëriñ bi fi mu teg liggéeyal sëriñ tubaa xam nañu Cheikh Abdoul Karim fi mu teg alquran ndax lu doomi soxna di xam ci alquran rek Cheikh Abdoul Karim xam na ko bu yàgg lu doomi soxna liggéey ci alquran Cheikh Abdul Karim liggéey na ko bu yàgg waaye nag mu am ak jagle ci xasiday Serigne Touba yi ngir fa mu teg Serigne Touba rek fa la teg xasidaam yi ba mu jotaatee ci téere bi fan la jaar tey nag ba téere bi ñu móol ko mu mel nii ngeen gis ngeen jàkkaarloo moom nii gis fekk wu nii mu mel gis mbind mi fan la Serigne bi jaar ba bëgg-bëggam sotti ba téere bi mel nii mu mel tey. wa sallallahu ala sayidina wa ala alihi wa sahbihi wa man wala assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñi ngi nuyu tey ñaanal sëriñ Muntaxa mu yàgg fi loolu te gën a wér ak njabootuk tubaa Tuubaa di ñaanal sëriñ Abol Baraka ibnu cheikh Mouhamadul Fadil mu yàgg fi lool te gën a wér di ñaanal cheikh Abdul Karim mi nga xam ne ci ëttum bi lañ nekk tey fii ci Ndindi mu ñaa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te gën a wér di leen nuyu yéen ñi ma bokkal jotaay bi yéen ñëpp di nuyu ñëpp nag ak fu ñu mën a nekk ci àdduna eh, sëñ Mortala eh, question bi nga ma posé da ma laaj loo xam ne am naa ci ab xam-xam sëriñ Moustapha fi mu dalee ba fi mu yem loola moo ci am ab xam-xam ndax moo ko dund waaye teewul nettali ni ko te kanam sëñ ma dégg ko nii mu ko nettalee noonu rek la ko jëflanteeg sëñ bi ba mu agsi fii kon loolu duma ci siwaat bi nga xamee ne sëriñ bi jot na ci yëg naa ci moom ak cant lool ci téere bi melokaan yu mu indaale ndax sëñ Modou Afis mi mu ko joxoon la sëñ Abdou Karim bëggoon ci téere bi bi sëñ Abdou Karim gisee téere bi sëñ Moustapha jox ko ko yëg na ne loolu mu defal nañ ko ci ba defal ci la koy njortam ndax melokaanu téere bi nii mu mel ni leen ko sëñ Moustapha wone kon lii luñ jàng la fan lañ ko doon jànge mooy ci barabu sëriñ Fallou barabu waajuram Euh, bi nga xamee ne agsi na dafa daldi taxaw temm ci nu téere bi yeesaate ci wet yii ndax am na lu dagg ngir mu defaraat ko defaraat googu yi rek euh, bi muy isin daay yi ak defar xalimbe yi loolu jël na ay fan léeg-léeg sax siyaaru mbooloo mi liñ koy ñor ñor ci garab gi lay toog di isin léeg-léeg mu isin aw këyit mu seeb mu delloo léeg mu xool daa mu seeb mu delloo Assane nii la doon dawee ka ñëw di indi daayee xalim xalima yi loolu bindkat moo koy def bi muy isin nag di isin ba am kayit gi ko gënal ba am daa ji ko gënal am na benn barab bu mu tabax ci kër gi mi ngi ci kaw ñu naan kaas ba léeg-léeg fa lay yéeg ne ci defaraat bi ndax da koo sotti lu ci yeneen këyit yi ci far mu di ko bindaat euh, defar ko bam ba mel ni lu sotti ba mu yóbbu ko jox ko xaadim ndaw mu foto ji ko bi ko xaadim ndaw foto bu indi ko mun ne ko bii daal xam naa faaw ñu xoolaat ko mu sóobuwaat beneen ndax boo ndax day bari na bii mooy day bu mag bi moom bi nga xam ne moom mooy cosaan li waaye bi mu ko doon defaraat amaan na yeneen day léegi bi nga xamee ne defaraat na boobu nag ba gis ne nii baax na nag la ko téye nag euh, xam nga sëñ bi lim nekk mu di ko ñor nii nit ki siyaar sax bu ñëwee bala faa am fukki minute dana ko xam ndax danaan la nañ nañ gaawal tuuti ndax dafa am liggéey bu may liggéey fan yi daa am taysiir bu ma bindoon yóbbu ko bërëb sëñ Fallou nag nga xam ne sax day daal di jëlee sëñ Modou Afis jëlee lay lay jël ba sëñ Moustapha mii loolu du ma ci dellusiwaat ni mu jotee ci téere bi euh, bu bu bu nit ñaanee li nit ñi bañ dem téere bi ci lay dellusiwaat nekk ci di ko defar di ko defar ba gis ni nii daal baax na léeg-léeg sax nit ñëw fi mu won la ko wax la yéene jim ci am xam nga taalibe daa xéer nga gis taalib bu ne ko waaw lii de moom des na ko mool wax a wax waaye mel na ni daal xelam jàpp gutoon kenn booba waaye booba xam naa ni eh, fii téere bi agsi bañ mool ko loolu la yàlla dogal waaye léeg sax nit nit jël ci nga xam day jël en charge war ne sax bu koy mool sëñ bi loolu am du ci nekk da koy jox rek téere bi mu yóbbu ko dem mooli ko mun la waa baax na fa ngeen ciy gëj a waxee. am na sax ku ko jege koo xam ne euh, doomi rakam la ñëw na fi sax gis ko ba wax ko ci ay yéene waaye taxul sax ñu waxaat ci xam naa loolu la yàlla dogal. bi mu xa bi muy xalaat mool gi rek bis bu set nag saa yu ñëwee dana ci waxtaanu ñun téere bi daal bëgg naa ko mool ndax lu mu bon bon sama mbind des fi noonu la ko daa waxee lu mu bon bon sama mbind des fi kon wane na ni ku yàgg bind la bind lu bari it nag waaye tey siir bii ci la natte mbindam des fi bi nga xamee ne toog na ba ab diir nii muy faral def bu génnee ci mbedd mi jàkkaarloog nit ñi ba saafonteeg ñoom ñaanal leen ba noppi day duggaat ci biir niñ àndeek moom di dugg ci biir booba sëñ Mbacke Ndiang mii di jarbaatam di doomi soxna May Galas ñoo ànd duggandoo man ak moom ak sëñ bi ci saal bi bi mu demee bay toog toog na sax ci kayit wi waaye bim ci toogee yëg na am na lu toog mu dal ni geesu daal di xëcc kayit wi fekk kayit bi baxañu ànd ak yeneen kayit mu di xool ba agsi dal na waaw lii lu mu doon daal koy dal koy daal taxar ci man mii maa ne ton na ko ah, ñiir daa mel ni muulkati itali la ndax gis naa signe bi ci suuf booba sax xaw moon ne jëmm ji may bëgg a tugg tudd ci kanam moom la danañ ci agsi sëñ Mbàkke yi mi daal lañ ton ne ko bàyyil ma woote ba xam daal di woo numéro bu njëkk bi mu dem boîte vocale sëñ Mbàkke woowaat beneen numéro bi jot jëmm jii di sëñ Mortala Diagne di doomi bàyyi mut Diagne ba mu ko jotee sax taxut ci saa sa ma xam ne Mor la da koo jot rek jot jëmm ne ko daal damaa gis wenn këyit daal boo xam dañ koo baxañ teg ko fii daal te man xawma lu ko fi teg ñu koy xool ba jot la mu mel ni yéen ay moolkati téere ngeen xam naa ci biir wax ja mu ne ko waaw ñu ñooy mool téere yi Italie mu ne ko ah yow da bëggoon naa ñu gisee sëñ Mor jaañ Diagne mi nag am disponibilité lool daal di ñëw gisee moom bi nga xamee ne sëñ Mor Talla dugg si na ba ma ko séenee laa ne ko kii day xawuma waaye man xam naa ko ndax bàyyi mut jaañ mu nekkoon daari kaamil mooy baayam daal ne ko moom moom ñaar ñaar rakkam nekkandoo woon nañ xel ko ëpp nañ ko sax waaye ñaar laa ci mën a tudd muy naa Jaañ ak Abdoulahad Jaañ mu ne ma ah mu ne ko waaw xam nga sëñ bi mbir moom lum gis gëm na ko waaye bu ci amee leneen lu ko gën a wóor da koy téye ba mu waxtaanee moom rek la ko yow daal daal di waaj fexe ñu muul téere bi léegi nag ci xam ngim xam lu war a génn ak lu war a tasaaroo sëñ Abdou Karim da koo xam lool lu war a tasaaroo ci nit ñi respect bi muy jox nit ñi dana tax da koy wutal parcours bu yaatu euh, sëñ Mor mi sëñ Abdou Karim bi mu koy jox ci baraxlu wi la waaye ba weeru koor wi jeex ci diggante baraxlu wi sëñ Mor nii la doon def bu demee këram bu fa toogee ñetti fan sëñ woolu ko mbaam woo ma ne ma gis am naa lu ma ci gis moom it nag ku farlu la ndax bu ci gisee loo xam ne xëy na yàgg na ci mool téere dana xam ne lii moom da cee war a génn ndax maa ngi fàttaliku am sa yi sëñ bi da ko defoon mu xonq mu mboq te këyit gi daa bëgg mu mboq mu ne sëñ bi am sa yi buñ ko bàyyee nii euh, buñ ko móolee du feeñ sëñ bi ne ko ah loolu nag di seetluwuma ko ñu dindi loola euh, sëñ bi tey siirul xasiir ji nii la meloon waaye boo demee ci mool melatul nii sëñ bi dana ko raay yi de moom damaa gis na daa rëy xam nga sëñ bi dane dane dongal daara moom léeg-léeg bu bu yoree xalimbam euh, yëf yi jaay ko nu ko neex lay bindee euh, raa gi daal moom gis naa ne daal dañ koy dindi sëñ moor taal Diagne moo ne ko machine mën na ko dindi mun ne ko fi ne machine mën na ko dindi mu ne ko waaw sëñ Mor Talla daal dem dindi ko ci machine bi ñëw indiwaat ko woon ko ko mu ne waaw dañ na de kon dañ kon ne nii de baax na ba loola jàllee it gisaat na ci biir am na boo xamante ne bi dana waaw wan sur alayna barakaatil baslama basmala kooku alay la wala alay naa loolu discuté nañ ci ab ab bis sëñ Moustapha mii sax am bis bu mu ñëw laaj ko ko sëñ Moustapha ne ko ah on defe naa alay naa la mu ne waaw waaw alay naa ba mu yàgg nag sëñ bi moo xalaat ni kon bas ma la ndegam rahmaan daa yaatu ci nit ñi moo tax sëñ bi naa alay naa sëñ bi ko de ma ne ko nag li tax mu dem ba ci kanam da wan sur alay barakaati ali imran ali imrana fil aali wa fil maali loolu euh, xusoosiyee la ci moom saar wi lay ñaan barkeem dal ci kawam léegi basmala nag sëñ bi ginnaaw ndegam nit ñi la ko yàlla boole mu mu indi àllay naa indi nuunu jamaa léegi nag ñuy ñuy xool lu mu ci gis daal day woo mortala léeg-léeg mortala gis ci dara woo ma téléphone ne ma sëñ bi de gisoon naan naa nga waxal ko ba xam ma wax ko mu ne ko nee ko fi ñëw bu ma nee ko nee na nga ñëw fi lu ci teg baat dana maa ngi ñëw daal di ñëw ci barax yi loolu lañ ne ci koor gi loolu lañ ne ba feggu yi des ci loolu sax ci la ci la ma laajit eh, tey si lu bàyyi ilimaan waaw waaw waaw waaw loolu dama ko fàtte woon waaw mu ne kon ci laa koy topp ci laa koy topp waaw kay léegi ba mu ñëwee nii mu mu ne mu ne tey eh, sur sëñ bu sa ilimaan ndax am na sëñ sëñ mu ne ko man am naa ko moom mii na ko am naa ko mu ne ko indil ma ko ba mu ko indee mu tolloo alay naa ji mu ne ko ci laa ko yow far topp nag ci la sëñ bi toppal boppam téere bi ba téere bi gën a wow euh, léegi nag euh, bi fegg wi desee ci gëm gi boppam nit day gëm boppam ci la ci la ne ko nañ ci def jàkka ji ci feggu yi jàkk yi rek jàkka ji rek sëñ Mor Talla Fall bi nga koy photo bu foto bi xawee dëng tuuti sax sëñ bi danaan ko fotowaat ko Euh, ci ci laa xamee ne sax nag murit nangu am na solo lool ndax sëñ Mor Talla moom doxee na ci noo xam ne xam naa ne bu doon keneen sax mën naa daj waaye dajul de waaye li taxoon daj ci amut solo fa afatu taalibi an yet jara nee na kii sàkku dal nga gàkk nga sa gàkk-gàkk mooy nga yokkat biñ demee ba ba mu xool ni lii ko gënal indi na fi lu mat ñetti feggu saa yu ko indil sëñ bi ne ko nañ delloowaat ko ba sëñ bi xëy na gisal boppam feggu yi mu mel nii keroog sax bi ñu indee téere bi mu ngi naan ma sëñ Mor Talla mi da ko yeewu la ndax fi mu dugal kanam jàkka ji day bañ day bañ bu ko tegee ci suuf jàkka ji dëppee ci suuf nga xam loolu sa sëñ bi xalaat na ko ci ndax ba mu xoolee gisut fii benn kii bi da dana ma anamu ma ubbi ko woon ko mu ne ma xam naa day bañ bu ñu ko tegee suuf mu ndax buñ koy dëpp nii la koy dëppee jàkka ji tege ci suuf léegi jàkka ji euh, jàkka ji fii la sëñ Fallou jullee ñetti yoon boobu fii tookuru ñàmbeem la woon sëñ Fallou bu ñëwee fii julli fekk ko fi foofu la doon jullee sëriñ bi ci ñeme gi dëgg nee na ma susuma barab bi sax mooy la naa ko tuuti ndax su fi nekkoon day yàq du mën a du mën a aligné ak kër gi moo tax ma dawale ko tuuti waaye bu ànd si woon nii lay lay nekk ci tànk sëñ Fallou yu ndëggu yu dëgg loolu sëñ bi ma ko wax léegi nag bi nga xamee ne euh, noppi nañ ci loolu bis bi bis bi ci koor gi ci mujjantalu koor gi la Mortalla jaa ñëw nag mu ne ko waa ah, fi mu nii nag moom bu la neexee mën ngaa doxal baatab doxal sax la ko wax mën ngaa doxal mooy mën ngaa mool man lépp sax maa ngi defe ne bu ginnaaw suba <laughs> danañu waat Mortalla Mortalla dem ab diir mu ñëw ne ko te loolu lépp nag Mortalla fii lay toog di yónnee machine ci tubaab ba nekk Italie tubaab bi di ko yónneewaat muy won sëñ bi ci laa xamee ne compétiteur muy machine mën na lu ne sëñ Mor Talla bi mu ko moolee ba nga xam ne euh, àgg na la ñëw fii ni sëñ bi téere yi àgg na bi nga xamee ne téere yi àgg na bi mu koy teg ci conteneur bi sax dafa wut ay vidéo won ko sëñ bi ñu wane ne téere yi ñu ngi koy sarse ñu sarse téere yi mu ñëw mu mu mu jógee France Italie bokk ñëw fii wàcc Dakar keroog dimanche al dimanche boobu téere yaa ngi ci biir port bi dimanche altine talaata talaata ci bëccëg la téere yi agsi fii nga xam ne bi téere yi agsee indi melokaan wi mu indi indi doxin wi mu indi te lépp jubluwu ci lu dul rek nee mbindam nit ñi jot ci ak it yërmande ji ne ci biir mbind mi nañ fàttaliku ne téere bi jànge nañ ko ci barabu sëñ Fallu 1974 ba 2018 loolu man seetlu naa ci doy waaruk sëñ Fallu ak téere bi fii mu tolloon mënoon naa sànku waaye sëñ Fallu li tax nga xam ne téere bi lu yàlla lu sëñ Tuubaa bind yàlla nangu na ko waaye téere bi yoo ko firndeel jàng giñ ko jàngal tey ba mu dem ba mën a tasaaroo nii nga xam ne man ki ma doon jàngal alxuraan bi ma ko joxee barki demu dane ma ñoom day ku bind xasida des na sawar waaye ñoom buñ ci bind buñ ko bindee dañ danañ ci gën a sawar àgg ci ba ne ma cëy bu doonoon mool bu ndaw far ndeke sëñ Mor Talla def na ci exemplaire yi juróom benn ngir di ko ko woon gis nga mool bu ndaw bi ni mu doy waar lépp doy waar waaye mool bu ndaw bi daa gën a indi mbind mi gën koo feeñal kon daal sëñ Mortal loolu loolu laa ne woon naa ko ci tàmbalee ba tuur bi dellusiwaat ci man. yaakaar naa lépp lu ñu waroon a xam ci parcours bi ba ni mu egsee fii mu egsi tey xam nañu ko ci ba mu mat sëkk ci amin wu sell kon mën nañoo jàpp ci say wax ni téere bi ñaari façon la am na bu mag moom ngeen jàkkaar loolu nii waaye am na mbind mu ndaw a atem téere beneen bu ndaw. Euh, moom ngeen jàkkaarloo nii bu si nekk nag def nañ ko ci façon boo xamee ni nit ki dana ko mën a jàng taaru na neex na ci gis-gis teyit euh, ki koy jàng dana ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax mbind meetam yéeme na yéeme boo xamee ni dana naqre tegtal walla me ko doomu aadama euh, nit ki gisal ko boppam rek mooy tax mu xam ki toogan di bind importance bi mu jox lu muy bind waaye ngir ñu misaal la ko dana xaw a jafe waaye nag ku yàlla dogal nga dem ba tiim euh, taysirul asir nga xamee ni euh, jëmmi taysirul asir li ci Serigne Touba dëxëñ ci ay mbóot jëmmi taysirul asir li Serigne Touba dëxëñ ci ay may euh, ñu ni nag taysirul asir la boo xamee ci Cheikh Abdul Karim moo ko bind minal bidaaya ila nihaaya jox ko importance bi mu ko jox ak yitte ji mu ko jox yaakaar naa façon bi nit tiimal ko boppam rek mooy tax mu man koo xam waaye du lu ñuy misaal sëñ Mortala Diagne ci kàddug la Gallas Diatara sawtu rot na ci ay yooni yoon mel na ni liggéey bi wane nga ci Pastef wane nga si njàmbarta waaye dafay mel ni fekk nañ la sa a waaratem nag fekk nañ la sa waar ndax ku xam imprimerie murit Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yaakaar naa xam taxawaay bi nga xamee ci moom nga ci yàgg taxaw ñu bëgg a xam euh, fan nga jaar ba téere bi mel nii nga xamee ni si tey dëppoo na ak bëgg-bëggu Cheikh Abdoul Karim auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloo ak noonu yooyu nuyoo yëpp rek ñu ko def ci jiital ko ci Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na ko fi sa borom yàggal ba lim lum lim sumbal sëriñ bi mu àggale ko ci teegi bakkanam di dellu di nuyoo sëriñ Abo moom mi nga xam ne mooy jëwriñu kër sëriñ Fallou ak njabootu sëriñ Fallou gépp di nuyu mboolem taalibe yi njabootu sëriñ Tuubaa gépp a ah, ci gàttal rek daanaka li nga xam li nga xam ne moo ci wax ci moom sëñ Galas wax na lépp ah nga may ma itam ma del ci leeral tuuti rek door a dugg ci yenn ci la yi ma laaj kere bi nga xamee ne sëñ bi woolu na ma ba ma ñëw ba mu waxtaanee man wax ma li mu bëgg. daa fekk ma wax ak mag muy sëñ Mat Jaañ mu nett li ma sëriñ Fallu ak Mamoor Kumba bi sëriñ bi dee ñëw bi sëriñ bi jógee gànnaar di ñëw ba ak ci yéen Jolof sëriñ Fallu dafa bindloo Mamoor Kumba ab téere asma lu badrin ba mu ko ko bindlee ba mu mu dem woon ko sëriñ mag bi loola ba nga xamee ne am na li ci des nga xam ne man ca loola laa daanoo lam ndax njëkk mu di ma teg mu di yan bi daf maa téeñ ndax su fekkente ne loolu séq na ko sëriñ fallu te sëriñ fallu daf sëñ ma jaan daan wax ne saa bu nuyoo sëriñ fallu da koy day ree jàpp ci noppam ne ko doomi mër kumba sa baay bind loolu na moom téere bind ma daa rafet lool mu ne nag ma dem ba yàgg ma gis ne ne kii moom a ta fasantil wala ré koo xam ne wala ré bi ngeen séqoon bis du du ko du du ko fàtte du ko bàyyi ba bindal ko ci ab xuraan ya loola man mooy sama moo moo sedd sama xol ci la yéeme Serigne Fallou ci laa sant Serigne Touba ndax ni ko ñuy waxee rek kuy leble da ngay leble ko am la Serigne waxoon euh, Serigne ba ci euh, menuisier ba doon daajal Serigne ba doon daajal gouverneur banque ba mu ko wooloo ñu ko dafa nekk foofu ba mu dikkee da ko ne mbaa fay na la mu ne ko waa ah, fay na ma ko mu ne ko boo liggéeyee nañ la fay ndax ñoom kenn benn yoon rek la ñuy fay fii nag bu ñuy fay duñ bàyyi bis ñu def fay bii laay witti waaw loolee ci laa sant yàlla bu baax liggéey bi nag moom bi nga xamee dikk nañ ba sóobu ci liggéey bi ni ko sëñ Fallou mi waxee ñun ñëpp daanaka ci kër gi dañoo ànd ci liggéey bi taxaw rek. li nga xam ne suñu borom may na nu ko ci kattan may na ko ci xam-xam ci wàllu mool nu jëfandikoo ci sëñ Tuubaa farnu ci ba tey téere bi nekk ah dëgg la eh, sëñ bi àll bi ma joxe téere bi ak liggéey bi tàngoon na ci deme woon na noo xam ne mënuma ci woon a sonn mënuma ci tayal lépp ba bëccëg ci téere bi rekk laa ne ba yàlla dogal biñ ko waxee ne ko nii mu ñuule mën nañ ko soppi def ci ay couleur yoo xam ne euh, day ànd ak day ànd liggéey bi mu ne waa baax na loolu moom naa ko gis ba ma demee ma dafa ci ñetti xit indil ko ko mu ne ma ak saa nii baax na nu nekk ca loola di ca dem buñ indee ni ko sëriñ waxee ndax liggéey bi moom sëriñ bee ko defal boppam ndax lépp lu ci ne bañ ko daan jàllale gis na ko ba ànd ca kon day mel ne moom dañ daan joxoñ rek mu dem defi ah li niñ ko defee itam euh, am na loo xam ne xam nañ ko ci mool ndax xam nañ cee yàgg bi nga xamante ne sumb nañ loolu diggante bi maa ngi wax tubaab bi di xamal ne ko am na téere boo danaa ko fa indi lii ak lii ak lii lu baree bari ndax ñoom xam nañ ni ñu jëflante ak ñoom ci loolu ci lañ dem di ko indi moom it mu di ma jox ay xalaatam moom tubaab bi sawar ci lool wax dëgg yàlla ci loolu ci la ñuy dem di ci dem di ci dem di topp fii téere bi liñ ko war a def ba indi rëdd yi nga xam ne ñetti rëdd yu mbokk bu ñu lépp ñu def ko ko ba sëñ bi nag baaxal ni ko sëñ Fallu waxee léegi baaxal mën ngaa dem nag ñu daal topp ànd ak bi jox ko ko lépp ñu envoyé ko ko ci email maanaam mu mu jël ko di ci dem di ci dem di ci dem waaye itam dama ni ma baaxoon daanaka ñetti fan wala lu mu def lu ne loolu danaa ko indi sëñ bi ci fay kayit mu xool ko ba ne ma lii wala lii wala lii ba lépp ñu door cee jàll. ah sas nañ ko ci itam ay sas yu bëree bari ndax eh, eh, tubaab dañoo xaw a wuuteeg ñu noonu ci wàllu làmbatu bu metti ndax seenu gëstu duñ ci jóg ba bëccëg te luñ gëstu ba xam ko itam dañ ko bind ba duñ ko fàtte daanañ ko doxal itam ba muy doxal norme bi ñuy wax ci mool moom eh, da ko ci utilise ndax ci mool am na di am na euh, am na am na am na limu këyit boo xam ne su ci àggee duutuñ ko def ponte métallique euh, du def agrafe boobaa dañ koy ñaw mbaa ñu kol ko ñi amul moyenu kol ñi amul moyenu kol nag sax ñooy jëfandikoo ñaw waaye su fekkee téere bi mat na loolu moom dañ koy dañ koy dañ koy ñaw léegi du am euh, agraf ci ñoom itam dafa am maanaam téeri téeri bii su fekkee A4 bi nii la toll am na loo xam ne am am am am am am am na bu fekkee A4 la day am mesure boo xam ne ñoom duñ ko ko def ndax am na ñeenti mesure am na A4 bi am na 17 24 am na 10 am na 15 21 am na 10 15 waaw am na 10 15 léegi bi ñu xoolee bii ne boobu mën naa bii mën naa nekk ndax lu mu ci mën doon rek soo ko xamutoon ni boo ko tiimee da nga xam ne ñaari yii bokkuñu waaw ndax a bi tey su ko defoon di euh, dix quinze dana jege ba bu dee dix sept quatre bi dix sept vingt quatre bi itam a bi da koy gën a rafet feggu yi itam dafa am noo xam ne ñoom noonu lañ koy taxawale ndax platification bi nga xam ne moom lañ ciy def loolu moom bénéfice ki koy jàngale waaye bénéfice bi mi ngi ëpp ci ki koy móol ndax léeg-léeg nga gis koo xam ne carton yi téere yam teg boo àggee day fekk lépp taqalu nekk benn la koy waral mooy tàngaay bu ñëwee day boole kayit kayit gi ak ak ak ak ak ak yi soo ko tàqalee mu mu raaf moo tax ñu ciy utiliser lu mel noonu ci bu loolu jàlle bu loolu wiyee itam am na noo xam ne même carton yi nga xam ne ci la ñuy war a def téere yi di ko ko denc wa ñu di ko indee day am misir boo xam ne waru ko ëpp ci peesawaayu téere bi moo loolu itam dañ ko ciy bàyyi xel bu loolu jollee buñ diggee ci wàllu mbind mi itam day am ay cent ay millimètres wala dara yoo xam ne ñaari bayit waruñ koo jegee wala ñoom waruñoo soree lu ko ëpp yooyu yëpp ñoom dañ ko ci bàyyi xel loolu nag mooy tax ñaare ci lu gàtt boo tiimee téere buñ defar wala bu ñeneen defar da nga gis différence boo xam ne euh, loolu moo koy waral loolu moom loolu lépp euh, kii utiliser na ko ci soññ naa ko ci façon soññ boo xam ne daanaka te ma daa andi sax àgguma ci woon moom ndax bëggoon naa sëñ bi saa bu ko ubbee xolam sedd ndax xam naa la ma yaak la ma la bëgg ci moom bu xolam bu xolam seddee danaa ci jot waaw kon nag euh, am na yeneen yu àgg si xam naa bu fi àgg si waatee comme ñu neen dañuy jël ak waxtu wi bu soobee yàlla daañu ci àgg ci leeral ci loolu waaw këyit gi itam ci lu wàllu mel ne entre quatre-vingts grammes ak quinze daf ci am ba ci téere bu ndaw bii ñu indi tam dem dem dem rafet lool fi mu ne boo xoolee kayit gi weexul tal te am na beneen bu ko xaw a gën a sa tuuti ci téere boobu boo xam ne weex lay doon boo koy xool da ngay gis ne weex ngay gis waaye fond ba day mel ne verte bu weex bu bu kaleer yooyu yëpp fi mu ne ci bii fi mu ne bu ma mën na mënoon na cee dolli ko waaye nag comme ñeenti juróom-ñett yi rek xaw ma nangam la ñuy pour pour ñu xool forme 15 21 bi ci ci ci mbind mi loo rek moo ko indi waaw kon xam naa ñu yeewandi ñu yeew foofu rek bu ma ko ci dee. waaw fii jërëjëf Serigne Mortala yaakaar naa li nga leeral ci téere bi ak façon biñ ko móolee ak kayit gi ak ni mu sàmmoo loolu lépp tegu ci. importance bi sëriñ bi jox xaside gi ba binde ko façon bii mu ko bindee nga xam ni tey képp koo xam ne ñoo ngi lay tudd di tund tudd loxo bu rafet ci wàllu mbind wala ñu lay tudd di tudd ak xam mbind tey boo tiimee téere bi saxool dana sedd ndax di nga xam ni ki ko bind jox na araf yi bu si nekk ak xam ba mu mat sëkk lu war ci araf yi rek def na ko ak araf wu nekk nañ ko war a xëcceeg nañ ko war a sàddaak luñ ci war a def importance bi mu ko jox sédd na ci dayop ka nga xamee ni si moo ko bind muy sëñ waaye Cheikh Abdou Karim sédd na ci itam dayoo xasidi gi nga xamee si mooy Taysiir Asir te yaakaar naa nag murit yëpp xam nañu taxawaayu Taysiir Asir ci biir xasiday Serigne Touba yi kon bala ñoo jox Serigne falu Garas Diatara mu jàngatal ñu Euh, importance du xaside gi di Taysirul Asir dañuy bàyyi kàddu gi ak Serigne Mbacké Niang moom itam yaakaar naa ni yëf yi fi mu dooree ba li mu egsee fii tey lépp ci kanamam la du ñàkk leeral yum ñu mën a indil yoo xamante si lépp njëriñ leen doon ñel ñi nga xamante si ñoo ñuy déglu te dañu seetaan billahi min asheytaan arrajim bismillahi rahmaan arrahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai sayidna muhammad sallallahu taala alayhi wa wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ginnaaw bu ñu jiitalee ci suñu nuyoo sëriñ tuba sëñ muntaxa al bachir tey ñaan mu yàgg fi lool te wér di toftal ci nuyoo bi cheikh mohamadou fadal sëriñ abo al baraka di ñaan moom it mu yàgg fi lool te wér di wax ne jotaay bi sax daanaka mënoon nañ fee bañ a jël kàddu ndax élément l'essentiel yi nga xam ne ñooy tax jotaay bi mët yëpp sëriñ bi dajaleel na leen fii ñu teew ci jotaay bi waaye yàlla dafa dogal bi ñuy dox parcours euh, téere bi ba mu egsi fii mu egsi am ci lu bari loo xam ne fekkee nañ ko ñuy wax ne sëriñ bi li mu jublu ci téere bi mool geeg liggéey bi ba mu egsi fii du dara lu dul wane sëriñ Touba Xaadimu Rasul ak Cheikh Mouhamadou Fadel mi nga xam ne moo ko waxoon ci làmmiñu boppam ne ko dama bëgg nga rafet am mbind te kenn umpalewul ne Serigne Mountakha Al Bachir ci li ñu ràññee ci digganteem ak liggéeyu Serigne Touba bi bi mu duggee ci loxoom ak léegi bokk na ci liñ ci gën a ràññee ci ay doxalin yu bees muy digganteem ak xasida yi sëriñ Tuubaa yi ngeen gis weeru koor wi taxawaay bi mu ci am muy taxawaay boo xam ne bu dolli murit yëpp Pastef la dolli leen kóolute ak lu bari ci seen digganteeg xasida yi sëriñ Tuubaa mu mel ni sëriñ bi bu móolloo téere bi di Taysirul Ansir euh, mi ngi ko defee rek ci ndigalul sëñ Muntaxa Albasir moomu ngir li ñuy wax ne sa kilifa lu nekk rek war nga caa ànd ak moom ba jeex tàkk moo tax taxawaay yooyu mu gis mu am ko ci xasiday Serigne Touba yi loolu moo waral Taysiirul Asiir bi nga xamante ne mooloon na ko euh, bu yàgg bindoon na ko bu yàgg mu nekkoon ci barabu Sëñ Fàllu mu bëgg ko moolaat ci jamono yi ngir tasaarewaat ko ci murit yi ñu barkeeloo ko ci mbindum loxoom ndax sëriñ bi kenn ku nekk xam na ne ginnaaw bu ko sëriñ Fàllu waxee ne ko dama bëgg nga rafet am bind bind na fi ay kaamil yu bari yoo xam ne am na ci boo xam ne ci ndigalul sëriñ Abdul Ahad la ko bindee woon muy kaamil bu doy waar boo xam ne dem na fu bari ci àdduna waaye bindaan na fi kaamil boo xamante ne euh, la ca xew ci xeeti tawféex bari na euh, bari na ci bu ñuy nettali boo xamante ne ci ab gàttal rek doxoon na ba dugg ci loxo sëñ Mansour ngeen dégg wax ju yéeme jëm ca wax waaye ci historique gu sëñ bi murit bu nekk mi ngi doon xaar fu muy jaar ba mën a am ab barkeelu ci mbindum loxoom sëriñ Abdul Karim moo tax ba Taysiir bi mu fexe ba ñu def ko ni ñu ko def loolu duma ci tàbbiwaat ndax leeral nañ ko ba wax fi mu jaar yëpp ba egsi fii ngir murit yi yëpp mën koo barkeeloo ci mbindum loxoom loolu dafa nekkoon loo xam ne dañ ne woon comme sëriñ bi daf ñoo yebal nañu nañ bokk ci jotaay bi ñu am kàddu yuñ ci sànni rek waaye xam nañ ne jotaay bi lu fi mët a wax rek wax nañ ko te waxee nañ ko ci anam boo xam ne xëy na ñun sax duñ ko mën a waxee noonu loolu mooy kàddu yoo xam ne dañ ne woon nañ ko ci sànni rek euh, asalaamaaleykum. yéemu gi mu ci yéemu woon ak la mu ca waxan waaye xamal nga ñoo tem ni wala boog dëggal nga li ñu waxan ni. sëriñ bi mbind mii da koo def buntub liggéeyal sëñ Tuubaa ndax andilaatal nga ñu mun Muntaqa bi mu dikkee ni mu yeesa laate kër sëriñ Tuubaa gi ci jàng xasida rawatina ci weeru koor gi mu mel ni loolu ak bëgg-bëggam la kon te Cheikh Abdou Karim dàkk bëgg-bëggu sëriñ Tuubaa rek ci la nekk guddi ak bëccëg kon macha allah jërëjëf ci li nga xameen si andilaatal nga ñu ko euh, sëriñ euh, Fallou Galas Jatra kon téere bi mbokk yi nii ngeen jàkkaarloo ak moom rek noonu la mel donte que la ci biir lépp nag ni ñu koy misaaleeg ni ñu koy man waxee eh, ngir ngeen man see peeg lu bari faw ngeen fexe ba tekki seen bët ndax eh, njariñ li bari na mbind meeteem yéeme ne lool te mel na façon boo xamee ni bépp bëtu murit bu ci tegu faw mu xemmem ko ginnaaw ku ci sa bët tegu nag faw nga xemmem ko bala ñoo jox sëriñ Fallou Gallas Diattara kàddu gi dana yell ñu wax leen ni téere bi ginnaaw bu ko sëriñ bi liggéeyee ba mel nii euh, def na kemt lay kattanam ba àgg na ci loxoy kilifa yu baree bari ndax xam na ni euh, liggéeyal sëriñ Touba rek moo tax mu def ko nii moo tax mu tasaare ko ci njabootuk sëriñ bi waaye xam na ne tam ku liggéeyal sëriñ Touba ci njabootuk sëriñ Touba faw nga liggéeyal sëriñ Touba ci taalibe sëriñ Touba yi tax na ba téere bi euh, képp koo xamante si bëgg nga cee am ay tegtal boo ñëwee fii ci ndindi sëñ Abdou Karim tegtal boo ci bëgg rek di nga ko ci am ba mat sëkk waaye waa imprimerie itam Cheikh Abdou Lahad Mbacké imprimerie murid Cheikh Abdou Lahad Mbacké ci njiitu Serigne Mortala Diagne mii nekk Touba Darou Khoudoss nga xamee ni si ñoom la Serigne bi doy loo woon ba teg liggéey bi seen loxo ñoom itam incha allah ku jokkoo ak ñoom loo ci bëgg xam di nga ko ci xam ba mat sëkk sëñ Fallou Galas Jatra ñu bëgg rek ñëw ci fi yëkkatee jataay bi nga ñëwal ñu nag dëgg dëgg dëgg ci xusuusiya muy jagle ak importance wu taysiru asir gi nga xamee ni si moom la Serigne tubaa bindan te Cheikh Abdoul Karim Mbacké di ci liggéeyal Serigne tubaa tax mu def ko ci façon bu mel nii. alhamdulilah jërëjëf sëñ Mortala e, ñu ngi santaat yàlla bu baax ndax xam naa ne sax e, laaj bi nga ma laaj nii danaa ci lott lool waaye ñu nab nabi rek ndax tey siirul asir bii xam naa ne ay kawteef ay kawteef yu bari moom dina ci am ndax maa ngi leen di fàttali ni tey siirul asir sax tur wi daa wuyu boroom waaye nag yéene ji sëñ Abdul Karim amoon ba jël ko teg ko ci loxob sëñ Mourou Afis sëñ Modou Afis wéyal loola ko sëñ Abdou Karim waxoon ba tey jii ba mu agsi ci loxob doom jii di sëñ Moustapha mu sàmmee ko nii ba mu agsi fii ba nar a tasaaroo nii mooy wane ne njàmbaarte gi nga xam ne sëñ Modou Afis feeñal na ko ci ginnaaw ba sëñ Abdou Karim feeñalee ak njàmbaar ci bind gi ca jamono yooye nga xam ne digganteem ak sëriñ Fall bi muy làqu juróom benn at yu manqué tuuti la nga xam ni boobu kon sëñ Abdou Karim boo ko seetloo doy na waar ni nii ko lu baax ñoree moom daa yàgg ci mu di ko ñor ñu jàng ko fa sëriñ Fallou di yëg ni doomam moo ko bind na tey siir buñ fa jàngoon luñ ci luñ ci sàkku yàlla def ko waaye dafa neex nag ci mbir ñu di la ko defal mu jógee ci koo xam ne kat dañ lay tudd di ko tudd loolu lu am solo la loolu moom mel na ni xalaat bu doy waar la sëriñ bi mi ngi bind xasida gi jurbel jurbel moom li taxoon sëriñ bi ne raamu masiri ilaa njurbel la daa sas la sasin law aayonoo sirra maa fi sayri maa raamu munuma koo tekkee lii ndax sëriñ bi la mu bëgg a wax foofu yaatu na waaye tey sir bi ci la bokk sàkku nañ ma dem njurbel waaye buñ xamoon secret bi may amee jurbel li ma fa yàlla y defale kon duñ ma fa yóbbu kon sëñ Mor Talla ni nga ko waxee léegi sëñ Mor Talla Diagne ne danaa dane danaa leen defal xatmu boo xam ne dootul soppiku ne def na ko mu soppiku ay yoon ba mu bindee kii nag mu ne danaa leen ko defal dootul soppiku xam nga Serigne Touba ay waxam li ma li ma ci gën a yéem mooy loo xam ne bu ko waxee ci kanam la jëm. Mm. te kenn du gis lu toll ni wirgil soppiku ci. loolu moo doy waar lool. ko ku bëgg gëm lu mat a gëm a góog mm. ku bëgguloo loo jàpp lu mat a jàpp a góog su nu demee nag ba sëtam bii bind lim bind ci alxuraan ni ngeen ko waxee léegi ba yàlla dogal mu doon seeti El Hadj Aziz dem fekk ku fa ndax sëñ Abdou Karim li doy waar mooy moom ak jotalam yàlla daa dogal rek mu yaatu te kat li gën a doy waar moom léegi la fi caatum El Hadj Aziz jóge doom caatam mu jigéen léegi léegi la départ. Umu Kalsoom si kon loolu may bëgg wax firnde la moo tax moo tax lu maanaam dara du hasard mu mu doon ko wone kaamil bi ngir ñu war ci am ay xalaat ngir yaatal ko mu dem fekk fu mu fekk nekkoon na faa dem alaaji jox ko rendez-vous mu dem fekk fa alaaji de siis fekk mu tukki mu gis kër sëñ Mansour mu bari ay nit mu ne fii fii kër kan la ki mu àndal la koy laaj mu ne ko fii mooy kër sëñ Mansour mu ne ko waaye nañ fi jaar siyaare ko mu ne ko ah nañ fi jaar waaye xam naa dana naqaree gis de waaye nag taxaw rek ma seet nee nañ nee na mu ne ko yow bul wàcc daal di gaare oto bi xam naa ko ku miin foofu la tur bi sax daana ko wax waaye maa ko jàppul nguuda bi nga xamee ne yàlla dogal na kooku dugg xam naa xam na ruq yi te sëñ Abdou Karim daal na bëkk néeg bi ku baax la nee na fa leen jaarale bañ ubbee rek dañoo jàkkaarloo si Mansour mu toog sëñ Abdou Karim ci mbaaxam gi ak fonk kilifa nii mu koy defalee kilifa mi bëgg a toog suuf si suñu na ne ko déedéet yow sama rak nga toogal nii ci kaw daal koy teg ci kaw mu ne ko ah, mu nettali ko fi mu jaar ba la ko indiwoon Tiwaawoon wan ko kaamil bi sëriñ Mansour ubbi ko daal di jël ci laf wi jël ci laf wi di ko wan mbooloo mi daal ne waaye gaa yi xool leen doomi Sëriñ Fallu ni mu def alxuraan gaa yi xool yéem mu nag mu ne ko Karim yaa def nii Karim Karim Karim dana la teral xoola jinaas yi nga xam ne moom la si Mansour di def ci dégg gi mu dégg balaaxa Karim yaa def nii Karim Karim Karim dana la teral kon mbind sëñ bi Karim def na ci lu ba mu xëyee nag ni daa ba mu jotee ci tey siir bi mu bindoon yóbbu ko barab suñ Fall jox ko mu rafis mu jot ci nag ne da koy def nii mu ko def ngir mu tasaaroo sëñ Moustapha mi jàpp ci bu baax indi ko te boobaak léegi ba mu ko indeeg léegi booba la ci gëj a xam dara ndax xam ne rek dana jaar yoon tey siir nag moom daal deme naa dem naa ba def ba xam ni jàppandaloog lu jafe ji sëñ bi wax ci tey siir bi moom amoon na naka jekk waaye suñu boroom am na lu mu def nag tey siiru la lii mooy jàppandal aji jafe ja tey siir xabar juñ asaf mubtadama la haza mooy mubtada mi tey ku ne xam na ni jafe benn la li yàlla ne fa inna maal usri yusran inna maal usri yusran taxut muy ñaar dañoo wax na baat baat buñ ko taaraa ñaari yoon kon loolu li muy tekk mooy benn baat la yusran yusran ji ñi nga xam dañ koo tanwin ñaari yoon dañoo wax ne ñaari yoon moo am mooy not genn jafe yonent bi ne lan yaxlibal yusray ni usrun waahidun genn jafe munta not ñaari yomb fa inna maal usri naka jafe genn ga an naa moom yu surat ak yomb inna ma aussi naka jafe genn ga ànd naa moom yu surat ak yomb kon ñaari yomba am genn jafe am sëriñ tubaa nag ñëw nañu jafe googee moom wut naa nag lu ko yombal waaye nag dama ko jaaree fi salaati ci julli ga alal basiri ci yonent bi aji bégle an nazir bi aji xuppe kon defalaale naa leen ci biir salaatu ala na bi nga xam ne yàlla da ko koo digaloon su ngeen demee sax ba mel lu xaw a sàggan ci war a julli ci yonent bi su ngeen jàngee tey siir yéen a ngi julli ci yonent bi te yëgu leen ko te yàlla moo ne sallu alayhi wa sallimu tasliman liggéeyal leen ko sëñ Fallu leen ne liggéeyal leen ko lay tekki inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yàlla nee na maag samay malaaka ñu ngi koy def kon ku jàng tey siir Sëriñ Tuubaa nee na la sa biir danay jàppandi waaye danga dugalaale salaatu ala nabi ci biir nga yëg ko ak nga ñàkk koo yëg téere bii buñ ne woon Sëñ Tuubaa bind rek te tuddul tey siir rek lépp ngi ci biir ndax nee na sama xasida yi lépp la ci yàlla def lépp ngi ci biir te li ma bind bi nga xamee ne maa ngi ci biir géej gi ak bi ma jógee ci géej gi sëriñ Touba nee na képp ku mas a mbirum yàlla ba àgg ci yàlla ba am ngërëmam maqaam moo yor sama xasida yi yor na ko kon noonu la xasida yi tolloo te nee na da koo peese ngir sante ko borom sintul xasaida lil wahaabi askuruhu sëriñ bi kon bu demee ba defal ñu xës digi nii mu nu ko defal taar bi xanaa xamoo ni taar bi nii mu jàppee mbind mi nii rek dana sawarloo ku ne mu jàng ko te yàlla yit may na ko ci jamono sëriñ tubaa def na muy ku nuy tudd bi mu nekkee ci biir kilif kilifam kilifa yi fonk lool mu fonk leen lool teg leen fi mu la war a teg yàlla may ko ëpp cër nag nit ñi di ko tudd loolu dogali sëñ sëñ Tuubaa la jaare ko ci sëñ Fallu mu jaare ko ci moom mu mu bind ko bind gi mu ko bind rek dana am ñoo xam ne dégg gi ñu ko dégg li sëñ Mor Talla Fall doon wax démb rek am na ñoo xam sax mën nañ bañ a xàmmee tey si rek dara waaye sëñ ko bind rek loolu ndeke tawféex la ju yàlla daxañ ci biir moom dañ doon wax léegi ne ñaata bayit la yàlla dogal ma doon ko bëgg a ba mu yàgg ma moom de sëriñ bi sax day boo yeexee juñ na ci bayitu mujj wa araf yoo xam mooy wane ne béy nangam la sëñ Mor Talla Fall mii am kum jokkool kim jokkool ne ko maaroo fii la daanoo roofi ji moo tolloog béy yi xoolu Sëriñ Tuubaa li muy def lu soobu maa laa yel sam warlul ci jëmmam ju lu warut ci moom muy 286 bayit nga xam ni fexe ba indi mahroof yi ci arab képp am na ñoo bu doon ñoom bala ñu koo def danañ sëpp xalim bi juróom fukki junni yoon léegi yow nga soxla manroof yi ba pare soxla waale damaa bëgg a lim bayit yi tënk ko waaye danaa indi manroof yi manroof yi tolloog loola moo tax ci mujj gi rek laay wax waktub lahu salla alayhi bisalaam fi alihi wa sahbihi baaxi salaam dana dana dana yow yàlla yàlla na nga dogalal yonent bi bi nga xam ne yaa digle ñuy julli ci moom julli naa ci moom te yàlla yaa fiy des te yaa mucc yi ayib nga dogalal ko lan bi kulli harfin ci wépp araf min tiil uróof yi ci araf yi ma bind saara saaratan mbégte moo xam ne yan moo dana dolli koo bihaa ci moom maaroo fii sama njekk mbégte mi na ko defal yonent bi bu ko amee ba noppi man ma amaale ca man la ma cay amaale mooy lu njekk lu ma téye muy dolli ko faw te du taxaw kon xas jigi ku koy jàng say njokk dana dolli ko te du taxaw mukk ndax ñaanal na ko yonent bi lam ñaanal yonent bi dal na ko lam ñaanal yonent bi ci biir ñaan gi mu am mu ñaanal ko boppam ci biir ñaan gi dal na ko te ku ko jàng mu dal la kon sëñ Mortal loolu laa ne woon naa ko ci dolli te ñi ngi ñaanal Cheikh Abdoul Karim moo yàgg fi loolu te wér ak kilifaam yëpp ci dëkk bi ak taalib yi ñëpp ñi ngi leen di sant yéen ñëpp ñu ñu ko àndal ñëpp ñi doon caméra ak ñi doon dégloog ñun ñëpp rek maasal leen sant allahuma salli ala sayyidina muhammadi wa sallim barakallahu fiik jërëjëf sëñ Fallou Galas Diatara ci li nga ñu xamal ak li ñu andil jëmmi taysirul asir muy euh, mbir moo xame ni wala muy xasiide goo xame ni lépp lu jafe rek euh, yàlla mën na see jaarale ak yombam ci darajay euh, xasiide gu am solo gi nga xam ci tey moo waral jataay bi ci bind ki ko Cheikh Abdul Karim bind démb rek sëñ Fallou Galas Jatara maa ngi lay dégg ngay wax ni mboolem téeméeri saari alquran yi ak fukk ak ñeent yépp ma ngi ci biir xasiida gi waaye bari na turi yàllaatem yu nekk ci xasida gi bari naa tem ay tur yoo xam ne yàlla def koo moomale ngeen ji mi def lépp nga wax ni sëriñ bi def na ko ci xasida gi kon jërëjëf sëñ Fallou Gallas si la euh, sëñ Fallou Gallas Diatra euh, ci xam-xam bu am solo bi nga xamee ni si moom nga ñu andil kon xam naa nag ci jeexeetalu euh, waxtaan wi dañuy daal di jébbal kàddu gi sunu sëriñ ki nga xamee ni si tey moo liggéey liggéey bu mel nii te ndeka jekk mu nekk ci waar wi di liggéeyal sëriñ Touba. di sàkku ngërëmul Serigne Touba tem ci njabootuk Serigne Touba gi fépp fu mu yaakaar ne mën na faa amee ngërëmul Serigne Touba wala fu mu yaakaar ne mën na faa liggéeyal yàlla ci jaami yàlla yi mu def ko ku ne xam na ni mbind mi loolu rek moo tax ndax xam nani ni jëmmi Taysiru Asir mën na lu ne waaye ni ma koy faral di waxee Taysiru Asir moom ñëpp ko bëgg rawatina nag gu ñu ne Cheikh Abdul Karim moo ko bindal boppam te la mu laaj lépp ci àq mu def ko ci ba mat sëkk ndax ku xam sëriñ bi xam ne lépp lu muy liggéey la mu laaj ci àq dana ko ci def ba mu mat sëkk rawatina nag loo xam si sëñ tubaa la jógee delluwaat sëñ tubaa kon sëriñ bi ginnaaw bu la nuyoo siyaare la sant la ci turu taalibe yëpp ci xéewal gii nga ñu andil te mu nekk lu ñu war a jafe lool waaye mu yomb ñu lool ndax fii may àddoo wax naa ni li ëpp si njabootu sëriñ tubaa gi sëriñ bi fexe na ba téere bi àgg ci ñoom muy benn téere beetem sëriñ bi képp koo xamee ni si yàlla dogal na nga ñëw ci kër gi dinañu la wax fa ngay jaar ba am ci Serigne Mortala jaañ mi nga xamee ni si itam euh, moo ko mool ma ngi nii toog kon te loolu lépp bu sëriñ bi dee def njëriñu taalibe yi képp moo tax kon sëriñ bi ñu bàyyi la ak kàddu gi nga tëjal ñu jotaay bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu sama sama sama sama kilifa yi ñoom li sama nuyoo ak ñoom ab siyaara lay doon maanaam damay nuyoo dafa mënut a ma xam ne moom laa doxalee sama dëgg ñoom maa ngi leen di siyaari ñoom ñëpp waaye nag li ko tàmbalee ci ki nga xam ne mooy sunu kilifa di Serigne Touba ci kaw suuf fi ñu toll muy Serigne Mountakha Mbacké di. ko ñaanal mu yàgg fi lool ba li nga xam ne moom la bëgg a liggéeyal Sëñ Tuubaa bëgg ko liggéeyal ci yoon wi ak lislaam <coughs> lépp mu def ko di siyaare Sëñ Abo Mbàkke bu baax mi nga xam ne moom it mooy Sëñ falu ci kaw suuf li ñaan mu yàgg fi ba li mu bëgg liggéeyal Sëñ Fallu mu mu yeggale ko ni mu ko bëggee di ñaanal mboolem njabooti Sëñ Tuubaa yëpp te samay kilifa ak ni nga xam ne ñoo ñoo nekk ñoo ñoo ñoo nekk ci liggéey bi rek sëñ boo it bi ma ko nuyoo ba siyaare ko maa ngi maa ngi ñaanal rakkam yëpp yàlla doon leen taxaw di ñaanal murid yi rek taalibe yi mooy murid yi ak lislaam bépp ak Sénégal gépp lii nag li ko li ko li ko andi mooy euh, mën naa ko mën naa ko tàmbalee sax ci euh, Alaaji Fall mi nga xam ne moo mën sa wax ne bëgg na ma mën a bind fekk ma ma sëñ xaar di dem nam daan def rek dama fa yóbbaale waaye yoon woowu nga xam ne eh, sama dem jàngi jot na man fu mu yoon wu fu mujj ànd ak sëñ xaas daf ko ne ba mu waxee li mu wax lépp ci man daf daf la fa mujj daal mooy bëgg naa mu mën a bind loolu wax sëñ xaas eh, sëñ xaas ne ko ah, kon de dana ko man yow de loo bëgg yàlla def ma dem ba bi may bi may bind kaa bi sax boobu fekk na sëñ bi euh, wàcc na liggéey waaye euh, fii la mu ko doon fii la ci ci kër këram gi ci jumaa ji booba sax dëgg-dëgg ndawe naa ba ni ma ni ma demee ak sëñ Fallou xaw ma ko ndax sëñ Fallou suñu si dem na fa ay yoon di ma fa yóbbaale te xamul nu ma demee moom waaye li ma daan yëg daal mooy bu ma daan dugg dem ci kër gi daal di entre suñu xaar moom bu bu duggee ci kër gi mel ni ku kër gi bu gisee moom ci boppam it xaw xaw ma waaye dama ko dama ko ragaloon boobu te xaw ma sax ne mooy sama waajur waaye saa bu ma ko damay mel ni ku am ku am am tuuti njàqare ba ci keroog boobu mu wax sëñ xaas naan ko bëgg naa mu mën a bind keroog daal laa xalaat ni daal lu lu tax muy wax loolu ci man daal xam nga lan la ci laa tàmbali di xaw a xalaat tuuti sama diggante ak moom ba ni ma xamee ne mooy sama waajur wax naa la léegi ne la bi may bind kaamil boobu sëñ dem na waaye fii ci kër gi ma ko doon wax fi laa fekk sëñ Mour Bousso kaamil bi ma bi ma njëkk a bind mm, moom ma ma di ko ko jox moom laa fa ma ma ci kër gi laa ko fekk bim bi nga xamee ne mag ñu bare nga foon keroog moom laa mel ni mag ñi ñu kenn desul dañ leen a woo te yegguñu woon sax ne daanaka xam naa noonu ñu daan def nga xam ne c'est señ bi ne rek ñu ne fa yàlla dogal nag keroog kenn desul sëñ bi daal di jël téere bi xool. xool xool daal ma yow de sa sa bàyyi Maodo Moustapha rek laa gis ci ko ko koo nuru ci xalima loolu la ma wax ma daal di xam ne kon li sëñ bi ne woon bëgg na ma mën a bind mu ngi tàmbali feeñ xaw nag lu mu xaw ma biram moom moo xam ma dem nag ba euh, ndax sëñ bi 68 la dem wax tamit jox ko sëñ Modou mmh, mmh, moo tax euh, ma sant ci bu baax bi nga xamee ne tey sirul asir Cheikh Amadou wax na ci lim mu ci wax lépp ma ba di ko bind ci barke Alaaji lu Mbàkke ak i waxam ak man-manam léegi wax naa leen soixante-neuf laa laa bind sama téere bu jëkk bii tey siir bi maa ngi ko bind maanaam diggante bi muy bi ma bindee sama téere bu njëkk boobu ak bi may bind tey siir bi juróomi at la li ma ci bëgg li tax ma di wax sax li ma ci bëgg a xam ne mooy tey siir bi nekkul sama loxo ca ba may ba may ba may bind dëgg ndax xam nga boo nekkee ci daara euh, amoo benn itte bu dul bind ay sotti xalimaak bindi rek bindi ci bind rek mooy sa itte loolu day da koy man ndax moom rek nga xam bokkut ak nga jóge ci daara ja lu mat juróomi at nekk ci big yeeg bindantu yeeg am yeneen soxla yu nekk sa bopp yu ndax ma ngay ne ci daara ja alxuraan ji ak mbind mi rek mooy moo nekk sa bopp waaye boo ci jógee nag ba ñëw yooyu yeneen da ci bokk yooyu eh, day wàññi eh, day wàññi ak mën a bind ci laa ko bindee waaye kii bu fekkoon ne ca ca daara ji laa ko bindee woon kon mbind mi dana dana yéeme dana yéeme lool waaye nag bi ma koy bind fekk na booba daal sama loxo ngi wàññiku man xam xamal naa ko sama bopp waaye ma ne rek lu sama loxo wàññiku wàññiku wàññiku lu ma lu ma lu sama mën a bind wàññiku wàññiku lu tee naa ko def ngir booba sëñ Maodo Afis moo nekk moo yor barabu sëñ Fallu ma ne ah, mel ni tey sirul asi ba ma ko bindee ñu yóbbu ko ci barabu Sëñ Fallu ñu di ko boole ci téere yi ñuy jàng dana am solo ci laa ko bindee yónnee ko Sëñ Modou Afis na ko na ma ko booleel ci téere yi nga xam ne dañ koy jàng ci barab bi ba boobu laa ci gëj wax dara ba ci jamono yi weesu war naa mat juróom benn weer sëñ bi sëñ Moustapha mi nga xam ne mooy mooy doomi sëñ Modou Afis euh, te euh, nga xam ne moo moo moo moo moo fa nekk moo fa nekkoon mu ñëw ñu ñëw fii seet si ma nuy waxtaan waxtaan ba yàgg ma ne ko waaw man daam na benn tey siir bu ma bindoon yónnee ko sëñ sa waajur ngir ñu boole ko ci téere yi ñuy jàng foofu ci barab ba sëñ Moustapha ne ma mu ngi fi de ma ne ko aha mu waaw mu ngi fi de téere baa ngi fi ne ko nu mu demee mu ne ma téere ba daal dañ koo jàngee jàngee jàng bu nga xam ne pegg ya dafa dagg téere bu màggat waaye nag yàlla dogal na benn araf dañu kii ba mu melee noona nag ma ma ma ma ma ko ma nga fa dem nga ma denc ci kër ga ma ne ko ma naa ko gis ca suba mu andil ma ko ma xool ko ma ne léegi gannaaw man mënatuma bind léegi te lu gàtt gàtt sama euh, mbind daal war na war na war na war naa feeñ tuuti si laa ko wax mu daal di ma koy andi ñu daal di ñu daal di man daal di koy xool daal di koy jox sëñ Mbàkke mi mu dem sottiwaat ko ci kii machine yooyu ah photocopie ba nga xam ne euh, kayit yi yeesaat na man a kii daal nañ ko naa ko fexe mool am na fi sax ñu wax ne yi dañ fee koo xam ne mool dëkk liggéey moom da ko man yàlla dogal ca ca suba sa xaw ma ci gannaaw suba sa mu ñëw fi gis ko rek moom ne ma ne ma kii kay ma maa koy mool waaye euh, taxul booba ma ma daal di ciy sóobu noonu dama ne tekk rek benn bis ma ñëw fii ci euh, salle bi rek ci ci ci ci soog ci fëti bi gis fa këyit boo xam ne xam naa ne bu fekkonte ne day këyit bu ñu teg fii tegin bu kii sax dama naan dañ ma ko fee tegal xëy na waaye këyit la wax ne dafa dafa dafa euh, dañ ko baxañ ba nga xam ne daanaka mën na si biir këyit léegi euh, te adresse euh, bi nekk ci këyit woowu ki ko ki ki adresse ba Euh, kuy kuy mool yi téere la ñu di ko wax sëñ Mortala Diagne moom xam naa ne xamul woon sax ne bind na xamul woon sax ne ne ne bind na ab téere wala bëgg na waa mool téere wala yooyu lu yàlla dogal la rek moom nag ci la dal di wax euh, sëñ euh, sëñ sëñ galas jatara ne ko waaw kii kii ma wan kii bi ko lii xam nga ko lii di mu ne ma ah, nañ ko téléphoné nañ gannaaw numéro baa ngi ci daal nañ ko woo sëñ Mbàkke ñang moo ko woo moo daal di jël téléphone ko ba jot ko ma ko na fi ñëw mu ñëw fi xool dal di ma ci wanu ak yombal lool ak mbaax ak taalibe waaw kii kay sëñ bi mën nañ noo ko bëggee rek mën nañ koo defee noonu nu daal di ci waxtaan ma jox ko mu daal koy liggéey ba mu mel ni mu mel loolu daal mooy mooy mbirum téere bi ah, xam naa ne moom léegi nag téere bi lu eh, téere bu ñuy jaay téere bu ñuy jox àddiya la léegi fim mu ne li ma nar mooy jox ci euh, sëñ bi sëñ Tuubaa sëñ Muntaxa ak euh, sëñ Abo ak ñi nga xam ne samay kilifa lañ rek ak taalibe bu ci yàlla def nga ne lépp nag ci lii mu mu mu Mor Talla Fall mi nga xam ne mooy borom euh, Benno FM lépp nag moo ko moo koy moo koy doxal moom moo ko moo koy yombal. moom nga xam ne jëkkewul ci téere bi ci suñ diggante wowuma ko nii ngir téere bi dafa la am rek ma ma ma seet ku ma ko war a woo ko du loolu moom dafay dafay dëkk nu bokk fi dëkk ba lii agsi moo tax moom nim ko nim te ma wóolu ko nag ci euh, ay doxalinam ay waxinam ak bëgg Sëñ Tuubaa ak bëgg lu baax ak Euh, lépp lu muy lu muy lu muy lu muy lu muy wax ci rajoom di wax joo xam ne jii rek wax juy defar la wax juy dimbale nit la muy sama waay moo tax bi bi bi bi jotaay bi waree ak siit it ma woo mu ñëw ma ma ne ko léegi nañ seet kii bi wane ko ndax euh, lii de lu lu lu jëkk bëriwul téere yi nag bëriwul fi ne Euh, lañ ko def yoon bu njëkk nii rek ngir ma doon seet ba xam euh, nu muy mu mën a deme waaye nag danaa ci mool lu bare bare bare bu soobee yàlla mool tàlla dana ci liggéey lu bari yoo xam ne ni hmm. bii mooy bu ndaw bi ñaar la ñu ci def bu mag ak bu ndaw bii mooy bii mooy bu ndaw bi ah. bu ko defee la demee li nga xam ne moom la sëñ bi wax ci téere bi lépp yàlla na ko yàlla defal yàlla na ko yàlla defal tey si lu natir moom mm, kii mane waaw moo tax ba mu bëggee eh, tuyaaba ju ju ju wóor a wóor ma ma ma tànn ko xam itam barabu sëñ Fàllu mooy fan ma yóbbulu ko fa te loola it dama toog rek ba xam ne xam nga yoonu yoonu sëñ Tuubaa moom boo ci nekkee te bëgg ci ngërëm su xel du toog lu la ngay xalaat ci lu lay lu la cay may dara ci ngërëm sama xal di def nii rek moo àgg ci xam ne loolu mën naa ci jële dara tey siir bu ñu bind yóbbu ko ci barab bu suñ fàllu euh, ñu di ko fa jàng loolu bokk na ci mën a may ab taalibe ngërëmul yàlla waaye suñ Moussa mi nga xam ne nag moo moo mu tam moo waggar di waggar ndax loolu yàgg na sànq te sëg léegi yàgg na ñeent fukki at ak ñeent eh, moom mi mu wagar di wagar ba mu mën a jotaat sama loxo ba mu mën koo mool nii gërëm naa ko bu baax waaw xam naa ne da ci am pay lu ma ci rek da nga ci am ndax ndax téere bi itam mool gi li ma ci jublu mooy ay tuyaaba rek nga xam naa ne eh, mbind mën naa yàgg mën naa yàgg ñu di ko jàng ci waxtu yu ne ak foo xam ne fii yegg na fa too ko xam ak foo xamul foo xam ak foo xamul mën na faa yegg ñu di ko jàng loolu yi wax ne garab boo ko jëmbatee la ciy jóge mën na faa des ab teen noonu yooyu ñu koy wax noonu rek waaye na nag lu Sëñ Tuubaa waxal bopp <laughs> lu Sëñ Tuubaa moom waaw kon daal jërëjëf. yàgg